que nee égalité boobu noonu bu buñ ci bëggee agsi il faut ñu autonome il faut que aussi leader féminin yi daal di affirmer wu femme bu nekk ci euh, domaine bi mu nekk mu nekk ci leader donc nag loolu tax na ba tey boo leen ñëwee ba gis sunu bâche bi gis tente bi gis sunu produit yi ñu exposé lépp lu luñ fi lekk ak lu ñu fi naan ñun ñu def ko ñun gëm nañ ne ne tey jii nii égalité bu doon yoon la yoon bi ñu war a jaar pour dem si moom mooy ñu daal di mënal sunu bopp di defar sunu bopp di yëkkandoo di wàccendoo man bu ma déggee ñu naan euh, égalité égalité damay posé wu question kan moo ñu war a jox égalité lu ñuy dem poqati la wala loo xam ne ne dañ ko paqueté fenn teg ko di xaar am fu ñu àgg ñu indil ñu ko foog naa égalité boobu yàlla moo ñu ko ñu ko jox ndax lu mu sante góor sante na ko jigéen li nga xam ne ne daan na ko teg na ko daan góor da teg na ko daan jigéen donc ñoo bokk ay àq ak ay yeleef mais ñun ñoo war a xam buñ ma waxee parité mun naa comprendre moom mooy que ni góor ak jigéen boo xam ne ne ñoo yem compétence ñu jël góor jël jigéen mais tey jii nii ni autonomisation benn moyen la boo xam ne ni ne moom moo ñuy permettre ñun bés bu ñu nekkee ay leader bés bu ñu nekkee ay entrepreneur ci activités yi ñuy def bu boobaa dinañ atteindre moo boobu ñuy wax autonomisation